retour sur le plateau matinal Allô Sénégal 8 heures passées d'une trentaine de minutes ñu dalal sunu gan mbokk yi tey am nañu bégte ah, dalal ci plateau bi ki nga xamante ni moo di Matar Thioune ah, Matar Thioune nag nekk responsable Benno Bokk Yaakaar ah, fële ca Kër Massar waaye ba tey nekk le président du mouvement Jeunesse pour Macky Horizon 2029 Matar ñu ngi lay nuyu. waaw di la ziar bàyyi la nga nuyu ndox. jëf euh, madame euh, Camara maa ngi lay nuyu di la. jaajëfal di nuy également sama chroniqueur yi ma fi dajal sama waa ji moom xam xamante nañ maam moom duñ mayante dara xam naa moom tey plateau bi dina saf sàpp di euh, aussi nuyu sama euh, kilifa gi aussi bu ma fekk miinu ma ko lool. Kajoor. Kajoor. Mhm. moom fu mu bokk. fu mu bokk fii la bokk. ah ci kër gi la bokk. waaw waaw kër gi nag moom ñu riche fi nekk. di leen euh, jaajëfal di leen aussi. Euh, baalu ci retard bi ma accusé c'est indépendant de volonté donc gis ngeen boo leen gisee bëri sax ngeen xam ne nelaw yi doyul ak euh, circulation bu xaw a tar bi mais maa ngi nuyu vraiment téléspectateur u 7TV yëpp di nuyu sénégalais yëpp di nuyu aussi Benno Bokk Yaakaar euh, département Kër Massar di nuyu aussi euh, le mouvement euh, les jeunes qui sont dans le mouvement jeunesse pour Macky Horizon 2029 di nuyu sénégalais yëpp di leen wax ne rek ñu ngi leen jaajëfal. Euh, dalal ak jàmm euh, Matar dañuy waxtaanee réew mi ak surtout li nga xamante ni moom mooy def actualité jamono ji une série de manifestations de l'opposition démb def nañ une grande mobilisation mbooloo mi bari na nit ñi dem nañu est-ce que vous vous sentez menacé. non pas du tout euh, kan kan la ñu menacé foofu. non je demande c'est une question. est-ce que nous nous si kii qui. Euh, vous. parti bu nga xamante ni na nekk ci pouvoir mais surtout yéen jeunes yi. ah d'accord non ñun nag li euh, italiens yi naan dara frege ñëw ñeente ñun moo ñu dal parce que d'ailleurs à l'instar de notre kilifa muy le président Macky ñu koy nuyu au passage ñun. noonu la ñuy doxee calme la ñuy doxee quiétude sérénité mais également aussi euh, jublu ci li nga xam ne tey jii mooy préoccupation des sénégalais ngir fex aussi réalisation yi nga xam ne moom la président Macky Sall di di di teg ci Sénégal ñu concentré wu ci pour également vraiment gën a euh, changer xar kanamu Sénégal ah li ma jàngat nag ci. mobilisation wu euh, benn pàcc ci opposition bi mooy euh, boo xoolee terrain ba ñu ko defee boo xoolee terrain 750 mètres carrés la. non mais donc euh, sérieux quoi franchement. 750 mètres carrés la et puis c'est destiné vraiment c'est un terrain d'entraînement des minimes ah c'est pour des minimes alors que ñun vraiment benn Bokk Yaakaar vraiment ñu moroomu xale donc mobiliser c'est très simple. la mobilisation reflété en fait li nga xam ne mooy réalité politique bi am ci actuellement ci ci terrain bi ak ci dëkk yi parce que euh, damay dégg tout le temps rek ñoom ñuy mbubawoo euh, opposition bi di mbubawoo naan waa benn Bokk Yaakaar pour ñu mobiliser dañuy fay ñoom duñu fay ce qui est ce qui est parce que ñu ñëpp gis nañ ne ci seen i mobilisation à chaque fois euh, am na ay car ak ay bis yuy jógee partout dans le Sénégal. ñan waa Pastef di rallier waa waa Pastef di rallier. mais kii Matar. di rallier non mais mais may ma non may ma maa ngi yow maa ngi yow suñu waxtaan du neex. parce que da nga may ma argumenté alors émission bi du yéen ñaar émission bi du yéen ñaar. sénégalais la ñuy waxal voilà bu argumenté pare mu posé question parce ma nangu mu koy dagg. allez-y voilà ñoom euh, gis nañu ay cars di jógee partout dans le Sénégal di rallier Dakar. ak ay bis di jóge Touba di jóge Ziguinchor di jóge feneen bis yooyu carburant moo leen di dawal ah dañ leen di fay parce que euh, transporteurs yi du ñu indi seen i bis gratuitement bu ñu ñëwee aussi dañuy jël prise en charge seen i nit loolu un deux aussi gis naa fii ci Dakaaru Njaay meeting bi ñu def fële ca terrain Yékini nga xam ne aussi terrain deux cent cinquante mètres la c'est destiné pour euh, ay cadets ñoo fay ñoo fay entraîner donc gis nañu aussi ay nit jóge yëmbal jóge Dakar jóge Pikine ñu jox leen xaalis jox leen sandwich ñu ñëw fekke gis nga donc gis naa ko man personnellement donc mobilisation jamono jii mënoo ko def te joxoo génnewoo ay moyens donc l'opposition comme pouvoir ñoom ñëpp dañuy dépenser pour mobiliser donc je pense que euh, ñu li ñu yitteel mobilisation euh, Pastef ci ay terrain wu 750 mètres carrés ak 250 mètres carrés reflété wul actuellement la réalité politique du terrain li nga xam ne tey jii moom la sénégal yi gëm mooy le président Macky Sall est l'homme idéal pour ce pays-là. D'accord. Pour la stabilité de ce pays-là il faudra que le président Macky Sall soit. vraiment réélu euh, le 24 incha allahu rabbi en 2024. man loolu laa gëm d'accord dinañ ñëwaat dinañ ñëwaat ci yow Pape permettez-moi juste de de présenter sunu beneen invité daal di ñëw euh, au cours de la discussion daal di ñuy rejoindre muy Ousmane Ciss euh, nekk professeur responsable communication PASTEF département de Tivaouane Ousmane ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir. ñu ngi lay ziar bu baax soxna si leen def seen wàccuwaay yéen ñëpp di nuyu suñu naataango bu ñu fekk ci plateau bi di jaajëfal bu baax aussi mbayeen bi xam naa nekk bi. ci yoon bi incha allah. <laughs> alors dalal ak jàmm Pam lan nga bëggoon wax. bon euh, comment dire euh, dañuy def daf ñoom dañuy dépenser opposition bi dafa dépenser pour mobiliser. Euh, pouvoir aussi day dépenser pour mobiliser bon benn rectification yow nekkaloo fa woon démb ci meeting ba donc bul wax ni oto fii la jugee euh, bokkoo ci coalition bi bokkoo ci parti politique bi donc dara wóoru la ci wóoru pour man euh, yow. vous êtes di wax ne euh, dañoo mobiliser dañoo euh, du duy ay car wala dañ leen a jox xaalis donc loo lu la wóoru moom wóoruloo si wax mais da nga ne dañu dépenser fii di euh, opposition bi da koy def pouvoir bi da koy def loolu yaakaar nga ni c'est une chose que ñuy jox ay xaalis nit ñuy dugg si ay oto di di wuy si si mouvement politique loolu yoon la wala. non dama ne déjà yow yaa ngi continuer sa bopp parce que man boo nee fekkoon man ci banlieue bi laa dëkk. yëmbal laa dëkk. mais parcelle la woon de. non déglu rek. du yëmbal parcelle ci banlieue bi la man damay dem parcelle damay dem fépp. démb foofu nga nekkoon parcelle. non dama fay wut. mais nous avons des informations waaw mais nous avons des infor des informations mbir mi du ndax fekkee nga ko wala fekkee woo ko ñëpp xam nañ ne la réalité. non da ngay minimiser manifestation. non je minimise rien. c'est la réalité minimiser wu ma c'est la réalité 250 mètres carrés la. c'est la c'est la réalité euh, c'est la réalité da ma laaj une question il faut me laisser au moins répondre da nga ne ma ndax c'est normal c'est normal parce que ay nit. mais loolu promouvoir corruption la. seen mataar loolu promouvoir corruption la mooy ñu waxante dëgg. il faut nga bàyyi moom ma toog allez-y allez-y. c'est normal. parce que dañu toll ci benn jamono joo xam ne nga nangu ko comme nga bëgg ko militantisme politique amatul nekkatuñ ci ay parti yoo xam ne c'est faux bul wax loolu militantisme politique amatul na loolu c'est faux parce que am na gars yoo xam ne di wax ne Ousmane Sonko jaral na leen lu nekk bokk ci parti Pastef di ci dox guddeeg bëccëg bul wax militantisme amatul yow mi li nga li ngay def nii du militantisme ñëw fii ci plateau télé di waxal Macky Sall loolu du militantisme politique nga ne amatul c'est-à-dire boo laajee nit ki question. non mais yow question ak ay relations ànd mais non moom il pose il relance. mais toi dañuy déglu pour nga défendre nga euh, man ci sama gis-gis bopp jàpp naa ne militantisme politique bi amoon au temps de PIT PAI. ça je suis d'accord. nga xam ne c'était des gens yoo xam ne dañ doon militer. avec conviction sans intérêt dans un parti politique di partager idéologie parti boobu man jàpp naa ne ci fi ñu toll ci politique amatul ñun ce qu'on voit actuellement c'est des jeunes bon yu topp engouement di topp koo xam ne xamuñu sax lan mooy idéologie politique am boo demee ci parti bu mel ni Pastef ñi ko topp ñëpp xamuñu lan mooy idéologie Pastef parce que Pastef amul idéologie c'est un parti va t guerre ki leen ki koy incarné aussi ñu jàpp ne dafa am un discours boo xam ne dafa am ciblage siblage bi fenn rek la muy gis na ni Sénégal am na ay frustré am na ñu mer am na une partie bu bëgg liggéey amuñu ko mu accès peut-être intervention ci foofu accès discours am ci foofu pour mën a capter seen seen seen seen comment dirais-je vigilance soo gisee ma ne jamono jii ñu toll euh, militantisme politique amatul que ci opposition que ci pouvoir gis nañu ne tey jii jeunes yu bari engouement moo leen topp gis nañu ne aussi jeunes yu ñu ci bari di génn ci meeting yi par curiosité parce que yow mi tey jii boo yoroon sa benn 4x4 wala nga yor sa benn pick def ci benn sirène foo génne dinañu xool ndax kii kan la donc tu man nga man nga man nga man nga man nga drainer benn monde boo xam ne monde boobu nekkuñu monde bu la fidèle kooku sama gis-gis la maintenant fii ñu toll ci jamono jii képp ku amul xaalis mënul mobiliser. d'accord foofu lañ toll jamono ji donc mois je je considère que nekkul loo xam ne dama koy dama koy encourager mais jamono jii fii ñu toll ci politique pouvoir comme opposition képp ku ci bëgg mobiliser di nga génne xaalis d'ailleurs kon ñoom dañoo am xaalis ñoom sonorisation sonorisation ñoom da koy fay sonorisation da koy fay oto yi da leen di fay dañoo am xaalis l'opposition nous avons une opposition madame madame Camara est-ce que vous pouvez vous me laisser tout simplement terminer effectivement dañoo am xaalis nous avons une opposition très très très très riche contrairement ak li ñu yaakaar d'ailleurs seen mentor Ousmane Sonko rek c'est un milliardaire foofu laa yam pour ne pas faire des révélations un deux ñi ñëpp xam nañ ne l'opposition surtout Ousmane Sonko est financée par des lobbies étrangers. ah mais li ngay wax c'est très grave. au niveau de la Guinée mën nañ la def citation. au niveau mais na ma def citation au niveau de la Guinée ñi ñëpp xam nañ ne il y euh, des hommes forts au niveau de la Guinée yuy financé Ousmane Sonko. mais ñëpp xam nañ également au niveau. di euh, euh, euh, euh il y a Mata, en France ah, des lobbies il y aussi en France ah. des lobbies. fort yi nga xam ne li leen intéressé mooy suñu pétrole bi ak suñu gaz bi permettez simplement dëkk bi ba ñu am. ñoo ñooñu aussi ñooy financé Ousmane ko moo ñëw waxat yi ci wàllu. Euh, seen euh, cotisation yooyu ñuy def ñëpp si soubassement bi ci bi ci nekk. xam nga ko yow xam nga ko man xam naa ko. c'est une façon tout simplement de camoufler fu seen financement jóge te loolu yéen journaliste aussi ak yéen chroniqueur yi war ngeen ko lijjanti. alors justement euh, Ousmane ñu bàyyi la nga intervenir nous restons toujours par rapport à la manifestation d'hier. Mm-hmm. Euh, ngeen ngeen ngeen rassemblé il y avait du monde. une une bain une bain une bain. humaine vraiment. Euh, image les images parlent delles non j'ai s'il vous plaît. s'il vous plaît madame Camara j'ai pas dit kenn nekk foon dama ne. terrain wu 700 mètres carrés la c'est pour des. milliers d'accord d'accord léegi ngeen ngeen drainer beaucoup de foule une foule nit ñi ñëw et tout lan ngeen bëgg a prouver exactement. d'abord da ngay permettre. Euh, ma nuyu waa Sénégal yëpp d' abord parce que di désolé wu di excusé wu ci retard bi ñu accusé c' est indépendant de notre volonté di nuyu kilifa diine réew mi yëpp di ci jiital sëñ Babacar Sy Mansour ndaxte nu sommes du département de Tivaouane fa la ñu jógee particulièrement de la commune de Darou Khoudoss euh, nekk fa comme responsable politique chargé de la communication euh, di. teg nuyoo boobu ci kilifa diine yi ñu jàllale ko ci Sénégal euh, di ñaan yàlla aussi lépp lu ñu ñaan ci ziar général bi ci Tivaouane yàlla nangu ko te mu nekk tawféex ak jàmm ci réew mi parce que je sais savon nous que Sénégal soxla na jàmm fi ñu toll nii donc loolu lañ ñëwoon dinañ ko ci sànni euh, di wax ne par rapport à la mobilisation d'hier euh, li ñuy tuddee évidence dafa am l'évidence c'est ce qu'on ne peut lu ne fàng olof njaay dana kenn du ko jeex euh, loolu benn mbir la parce que terrain deux cent mètres carrés terrain sept cent mètres carrés mais ñi tegoon seen tànk ci parcelle démb terrain akapes man mi de centaines de mètres à la ronde la gaare sama oto. te fa woon. maa ku ma laaj ñu ne ma mënoo avancer parce que dafa xat les forces de défense et de sécurité boo leen demee ci station totale bi foofu lañu taxawoon te ñi xam terrain ak APES xam parcelle xam nañ ne bu fekkoon ne amul woon nit à ce point kon yaakaar naa ne accès bi dina yomb donc loolu leen rek lay firndeel déglu naa ko mu wax ba daaneel. Mhm. mais dafay firndeel ne souvent Macky Sall. li ko sonal moom mooy ne il ne voit pas la vérité en face et malheureusement et c'est domage pour lui ndax képp ku ko wër yow yaa ngi koy jéem a dugal ci guuta goo xamante ne tey bu ci duggee da ngay roccee ba set ci wicc ndax tungu ni du teew ñuy naataal mars 2021 bi réew mi xawee sa ngéem tuuti gis nañu kilifa yi nekk APR yëpp entre guillemets ñoom ñëpp dañoo làqatu donc tey bu fekkee ne day wax ci ay kàddoom ne démb ñi fa ñëwoon bëriwuñu wala la fa nekkoon espace bu tuuti bi moo tax ñu am impression ne c'est une marée humaine man yaakaar naa ne loolu sénégalais yi xam nañu te gisal nañu seen bopp ne président Sonko ak les leaders de Yewwi Askan Wi leur capacité de mobilisation n'est plus à loolu waa international sax xam nañ ko parce que tamit gis nañ ñu ci mel ni ay chroniqueur wala ay yeneen borom euh, kàddu ci Afrique ñu ci mel ni ay ñoom Nathalie Yam bi ñu defee mobilisation Kër Massar. d'accord y a pas de ah, mais am na benn borom xam-xam dafa am benn borom xam-xam dëgg du am couleur. benn borom xam-xam bu ñu woowee Averroès dane la vérité ne peut contredire Averroès Ibn Rushd dane la vérité ne peut contredire la vérité dëgg amul Pastef amul APR amul diine bi amul waaso bi amul xeet bi dëgg-dëgg rek la donc mu far ak mu ñàkk far tey kenn du naataable ne couleuru Sénégal vert jaune rouge la soo faree difficulté moom mooy achat boobu soo faree mm-hmm. difficulté bi moom mooy pour ñu gëm la day difficile da nga boo mun nga far boo faree mm-hmm. mataa mi APR la bokk waaw suy wax si Macky Sall mën nañ joxtu ni lu muy wax nekk lu objectif tout à fait mais ñun ñëpp yàlla dañoo bind ak esprit de discernement ku ci nekk xàmme na lu baax ak lu bon gis nga vérité li ñu koy nattee dafa am cohérence ak logique sànq ci kàddoom maa ngi for mu ne euh, dañoo jël xaalis woote ay militants ci ci département yi. Mm-hmm. Euh, foofu leen rek laa koy tontu man responsable départemental la responsable communal la en même temps coordonnateur Yewwi Askan Wi sama commune la di wax ne ñun on n'a pas su et je parle sous le contrôle de tous les responsables de la commune de Darou Khoudoss amuñu loo xamante ne mën nañ ko dugal ci sept place indi ko démb fii a aux Parcelles Assainies parce que lan dañoo war a mobiliser te dañoo accepter suñu manifestation du quinze département yëpp pratiquement dañ leen accepter manifestation. mais cela veut dire quoi. mais même tuuti ma daaneel. cela veut dire quoi. cela veut que tey ñi ngi war a mobiliser tey mënuñu toog Dakar ba minuit war a ñibbiwaat mobiliser waat jëlaat ay car te ñu am seen yitte ak seen liggéey demaat ci seen département yi. donc loolu firnde la buy wane ne démb mobilisation bi amoon. Mhm. du ma ne jugewuñu feneen ak feneen ci Sénégal mais je peux vous dire que la majeure partie yi fa ñëw ndakaaru njaay gii lañ jóge. d'accord Kajoor parce que ñu woon leneen. Kajoor dinaa ñëw sax dinaa ñëw si. Euh, style de communication puisque moom il est dans l'équipe de la communication te ouais. y a non à boire et à manger mmh. quand si mm-hmm. communication Ousmane Sonko mais damay ñëwaat si euh, monsieur Thioune Euh, monsieur Thioune damay poser question ba xam ndax amul beneen lecture boo leen mën a def de la situation bi am démb. ca kër euh, ca Parcelles Assainies quand on sait que Parcelles Assainies ak lépp lu fa euh, Benno Bokk Yaakaar am comme ay responsables politiques vous avez perdu les élections yi weesu vous avez du mal à à à à à harmoniser en tout cas vos vos vos au sein de ce parti quand je dis vous c'est les, les responsables de de de de Benno Bokk Yaakaar c'est un poli secret de polichinelle su ñu waxee ne déggoowuñu responsable yi ça tout le monde le sait donc tey jii ngeen ñàkk déggoo boobu indi indi tax ba ngeen perdre Parcelles Assainies ku xam parcelle Parcelles Assainies xam une forte présence de la jeunesse foofu une forte une bonne concentration ci électorat bi ngeen perdre ko. Euh, démb mu am mobilisation. bu mel noonu euh, c'est mu ngi noonu donc tey ngeen am ngeen gis mobilisation bu mel noonu est-ce que amul beneen lecture boo leen war a mën a def bu dul jéem a sous-estimer li nga xam ne c'est à la limite une évidence. merci beaucoup mon cher nous nous ne sous-estimons rien du tout cest à ñun ñoom la ñuy def il faut ngeen nangul ñu ne ñun intéressé wuñu il faut ngeen nangul ñu ne ñun Benno Bokk Yaakaar jàpp nañu ne. de par liggéey bi ñu def au niveau des bases de par processus de vente de carte bi ñu nekkee de par aussi li président Macky Sall di def ci dëkk bi de par aussi li ñu dégg les grands électeurs di ko wax parce que les grands électeurs ce ne sont les jeunes ou bien une partie de la jeunesse buy génn topp ndaw si Sonko di sànni ay xeer. wala ñuy brûler non non non même on est dans un pays boo xam ne plus de 60 pour cent jeunes lañu. damay ñëw pourtant damay ñëw j'ai dit j'ai bien dit une partie de la jeunesse. cela ne veut pas dire que toute la jeunesse est dans l'opposition il y a une partie et une très grande partie de la jeunesse qui est avec le président Macky Sall qui est avec le pouvoir et qui partage les convictions du président Macky Sall boo gisee mën na ñun minimiser wuñu mais ñoom la ñuy def intéressé wu ñu ñu actuellement dañuy concentré wu ci li nga xam ne ñun moom la ñuy def wóolu ko gëm ko parce que dañu xam ne ci suñu coalition Benno Bokk Yaakaar nous avons une seule constance ñëpp dañu boole ne moom la contrairement aux élections locales yi weesu vous m'avez parlé tantôt de Parcelles Assainies bien des Parcelles Assainies mais élection locale yi fa amoon à l'instar des autres communes ñëpp xamoon nañ ni dafa am ay ñëpp xamoon nañ ne leader yi fa nekk il faut aussi ñu reconnaître benn affaire les plus grands leaders de notre parti sont concentrés au niveau des Parcelles Assainies et ñoom ñëpp ku ci nekk danga am un électorat donc ñoom ñëpp aussi bu ñu boolewul seen électorat mais yoon la tey jii mu am porox ndoll goo xam ne kenn dafay jaar pour mën a gañe boo xoolee Parcelles Assainies ka fa gañe waa Parcelles sax xamuñu ko li waral loolu mooy xaajaloo bi Kër masaa soo demee nga ne kan mooy conseil départemental bi nit ñi xamuñu ko soo demee nga ne kan mooy euh, maire yëmbal euh, euh, yëmbal nord ñu si bari miinuñu ko Kër Masar sud Kër Masar nord. ñu si bari miinuñu leen li waral loolu mooy. li waral loolu li waral loolu mooy xaajaloo bi na contexte yi dafa wute ñun dañuy jëm présidentielle 2024 ñu am benn constance ñépp ne léegi dañuy dajaloo pour jàppale la président Macky Sall. te ñun ñëpp xam nañ ne le président Macky Sall mais présidentiel boobu le travail se fait en amont à la base te base yi c'est effrité loolu laay wax. c'est ce qu'on est en train que je suis en train de vous expliquer mm-hmm. je vous ai dit contexte yi bokkatul les gens ont fait taire leur querelle intestine au profit du président Macky Sall. ça c'est vous qui le dites. amoon Parcelles Assainies li amoon Parcelles Assainies mm-hmm. locales yi en tout cas ñun xam nañ ne y un travail qui reste. à la ba mais actuellement xajaloo bi ñu xajaloon commencé na maintenant wàññeeku na boo gisee ma la. Euh, ñun concentré wuñ ci ñoom li ñuy def. foofu noonu laa bëggoon ne juste ma tuuti rek. soo waxee ni que yéen concentré wu leen wala ñoom li ñuy def intéressé wu leen en tout cas man personnellement c'est pas ce que je vois. Mhm. te yaakaar naa ni am na ñu ma bokkal xalaat ci loolu noonu. Mhm. Euh, récemment la jeunesse républicaine def nañu rencontre une rencontre présidée par le ministre de la jeunesse Amadou Niang li mu fa yëkkati ci ay kàddu lan la wax ni yëkkati na kàddu yu ñaaw ñëpp di ko ñaawlu c'est-à-dire. d'une une partie de vous yéen a ngi répliquer ci ñoom li ñuy def donc ne dites pas ne dites pas que waaw madame Camara xanaa li Amadou euh, wax lañ nga gis léegi li li waa opposition wax démb ci lu ñaaw gisoo ko yow mais justement pourquoi ngeen war a toog ci lu ñaaw lan tax rek nga bëgg yow gis li ñu wax opposition bi li ñu wax ci lu ñaaw yow gisoo ko mais xam nga opposition bu waxee lu ñaaw li ñu wax fële yàq ko opposition bi yàq ko pouvoir yàq ko président Macky Sall ci lu ñaaw. d' accord léegi ci ay kaddu lan moo tax. mais lan léegi bu opposition waxee lu ñaaw. voilà yéen ngeen wax lu ñaaw. man dégguma man dégguma lu ñaaw lu ñu wax. dañuy dem taal ko Sonko loolu du lu ñaaw loolu yow yaa ko dégg mais man dégguma. ma ñëwaat ko mais ñi dégg nañ ko. ma ñëwaat ci li mu wax donc wax ni que ñoom li ñuy def intéressé wu leen. waaw mais bokk ñun suñu coalition Benno Bokk Yaakaar ñun on est concentré sur l' mooy ñun li ñuy def pour fexe président Macky Sall. en tout cas réalisation yi mu commencé mu àggali ko. Ah comme 2024 <coughs> ñu kii ko dafa wax léegi. dafa wax léegi ci wàllu mobilisation terrain ak APES ku xam terrain ak APES xam ni terrain ak APES configuré même bu dul manifestation même bu fa dara xewul sax ñu ñëpp xam nañ ne pour mu am fluidité. du yomb nekkul yomb circulation bi dafay. maanaam dañuy minimiser quoi maintenant moom. minimiser boobu parce que yéen seen meeting bi ñu ngi xaaruñu sax seen discours yi. donc importance suñu. Hmm. coalition Benno Bokk Yaakaar. jàpp nañu ne doole bi ci ñun la nekk dans la mesure où ñun bu ñu président gis ngeen tournée économique bi muy def. li muy mobiliser. tournée politique les gens ne s'attendent même ne même pas vos discours. li muy li muy drainer ci monde. boo demee Thiès dem Tamba dem Sédhiou ñii dañoo toog ba vingt heures presque. je pense que amul benn. amul benn coalition parce que sànq. amul benn coalition bu koy drainer. waaw parce que sànq dafa def ay allégations. Euh, dama ci def transition parce que dañu ñun xamuñu lan mooy idéologie xamuñu lan mooy peut-être formation parti. xamuñu lan mooy militantisme yaakaar naa ne loolu c'est insulter les Sénégalais en général pour ne pas dire euh, les patriotes entre guillemets ceux de Pastef ndaxte boo nee engouement la nit ñi toppee le président Sonko da ngay daanu Sonko ci njalbeen 2014 dafa waxoon ne discours la ak parcours discours ak parcours di wax ne idéologie lan mooy jeexitalam ci dëkk lan mooy finalité idéologie muy socialisme ak capitalisme ak progressiste ak gauchiste ak droit ñëw ñëpp lan mooy seen finalité mooy teg ci yoon ab réew ba mu mu egg mu mën a egg ci réew yu développé ñun projet bi ñuy porté mu nekk un projet ki ne plus sénégalais mais panafricaniste Hmm. dañoo jàpp ne panafricaniste bien sûr parce que suivre ngeen actualité. anne ah, bon année yi passé wala mois yi. passé ça n'est pas présomptueux. non maintenant c'est patriote africain. am na ñu njëkkee woon gis nañ ni bon. non d'accord ñu ko fi njëkkee woon ñun wax ñu si. c'est li ñu intéressé mooy juste fi mu aborder euh, ces allégations la pour dire que ni Pastef doxewul noonu Pastef président Sonko wala partie bi bureau national heure bu wootee cagnotte. wala heure bu wootee benn levée de fonds jaaykatu marché yi dañ ciy jaayante jaaykatu gerte caaf bi day joxe enseignant bi day joxe. médecin bi day joxe c'est un parti qui est très bien structuré et très bien organisé. même même tuuti rek après dinaa la bàyyi nga relance. donc ci côté boobu di wax ne euh, wax balaa moo neex da nga ciy duut baaraam que Sonko ñii ñoo koy financé. ñële ñoo koy financé yaakaar naa ne loolu bu amoon dinañ ko gis. mais mais le si levée de fonds boobu pardon. allez-y si levée de fonds mhm. que yaakaaroo su fekkoon ni lépp clean la tout est clair. du mhm. am ñoo xamante ni dañ leen si dañ leen si jàpp. dañ leen si jàpp leen. mais euh, sànq ci samay propos euh, bi may nuyu dama bëggoon a présenter d'abord euh, wax dëgg yàlla les sentiments de compassion à l'endroit de la famille Diop bu Chérif Lo parce que. Madiaw Diop coordonnateur GPS départemental bu Tivaouane démb lañ ko def mandat de dépôt seen rangeen yooyu ñuy joxe ay refrain yoo xamante ne c'est devenu bidon moom mooy appel à l'insurrection voie de fait wala leneen ak leneen euh, sans que soxna si évoqué na lu am solo Ahmed Suzanne Camara fii la taxaw devant tout le monde ne dañu war rey Sonko gis nañu j'ai que sais encore le non j'ai oublier responsable à APR taxaw ci wetu Pape Malick Ndour Hmm. taxaw ci wetu Pape Malick mais mais mais bu fekkee da ngay yëkkati ay comparer mais bu fekkee da comparer démb a une justice qui est sélective. mais bu si manifestation bi. man am na ñoo xam déglu naa leen euh, moo ñu gënal xalif généraux yi suñu affaire genre. non cest am na de part d'autre. mais man faut pas que nga rek après nga leneen li. non occulter wu ma leneen li. damay wax lu ne fang. te am na lu ko dire c'est dans les deux c'est dans les deux parties. non dama bëgg dama bëgg a wax foofu rek dama bëgg a wax foofu rek ne gis nga poumon yi nga xamante ne démocratie moom lay respirer moom mooy la justice parce que quand la justice devient injuste réew mënatul a développer parce que day am làq doom dóor doom parce que tey koo jàpp ci Pastef wala ci yeewu askan nga kole ko motif appel à l'insurrection wala motif bu ni mel or que à chaque fois benn responsable benn militant APR wax dara du mujj fenn ministre Mansour Faye gis nañ ko fi à plusieurs reprises ci font force Covid bi mu ne buñ ko woowee du wuyu tey bu fekkoon ne tey un responsable de Pastef moo ko wax. parce que amul ñu ne ko bu fulee ah. mu wuyu. non c'est-à-dire li ñu bëgg a li ñu bëgg a wane foofu rek li ñu bëgg a wane foofu moom mooy ne tey sénégalais ak communauté nationale internationale gis nañu les arrestations les arrestations arbitraires en même temps mu am benn caractère bu inhumain parce que sànq maa ngi wax ci kaw Madiaw Diop. ci lieu de travail lañ ko fekk te xam nañ fu mu dëkk. yóbbu ko xam nañ fi mu dëkk à Dakar xam nañ fu mu dëkk à Chérif Lo. alors ñu fekk ko ci lieu de travail am c'est déshumanisant et c'est aliénant alors que ni loolu ñu ne duñ ci wax mais dañ ciy wax beneen bi aussi dinaa la may nga relance. rapidement dafa wax sànq wi rapidement. dafa wax la question des jeunes. mu ne euh, jeunes yi duñu poids électoral mais dama koy samp laaj. ne ko qu'en est-il de la question. mais qu'en est-il pas dit ça. man nag man nag. d'accord sama làmmiñ bi. d'accord mais dama ne une infime partie de la jeunesse. une infime partie d'accord la majorité de la jeunesse. nous on considère. je vous reprends au dire avec le président Macky Sall. c'est bon merci beaucoup je vous reprends au dire une infime partie de la jeunesse est avec Sonko mais laaj bi may samp. oui. moom mooy ne lan moo waral primo votant yi bu fekkee ne dañoo bëgg bindu wala dañoo bëgg a inscrit ci fichier électoral bi ñu am problème pourquoi ñu leen di jox délai un mois. mais mon cher. c'est des questions qu'on doit se poser. primo votant yi mais ñun non non c'est une question de temps aussi. il faut que nga jeexal voilà mais tout le monde a le droit de s'inscrire. analyse électorale dinañ ñëwaat foofu c'est parce dans la diversion. analyse électorale. donc man li ma bëgg a wax mooy euh, man je réitère mes mots. man maa la wax ne la le parti le parti Pastef amul idéologie moom mii jeune la boo ko waxee lan mooy idéologie xamu ko il me parle de panaf ki panaf xaw ma lan ak wane mais il faudra être sérieux ñun ñëpp gis nañ seen leader bi muy doog a ñëw peut-être am nañ idéologie. bi muy doog a ñëw bi muy doog a ñëw mais affaire intellectuelle la doon jaay ñun ñëpp gis nañ ko fii moom moo doon inciter jeunes yi à ne pas faire de la violence. di tenir un discours élogieux nan leen non jeunes yi waru leen di xeex jeunes war kenn waru ko xaar ci xeex dañ ko war a xaar ci liggéey dëkk bi di def ay affaire intellectuelle di bind ay livres bi mu demee ba xam ne. mais ce qui est bien. fii mu jaar yoon après fii mu jaar yoon bii mu jaar. nga du yoon boo xam ne te ñëpp dégg nañ ne livre boobu bindu ko dañ ko koo bindal. ah bon euh, ah fii de kenn rek kenn rek ko euh, bindal. Euh, voilà <laughs> bi mu demee ba xam ne yoon boobu kenn rek moo fi bind baaxul. Macky xam ne yoon boobu baaxul jeunes topp ñu ko mu commencé dox ci maayeenu ñu yi ak maayeenu jeunes yi dama wax léegi ne Ousmane Sonko dafa am ay cible am te malheureusement une partie de la jeunesse dañ ko ci suivre mooy dafa ñëw gis ñi nga xam ne dañu frustré ñi nga xam ne peut-être bëgg nañu emploi mënuñu ko am parce que Sénégal nag comme du du États-Unis ndegam États-Unis ak France ñoo mënul jox seen i jeunes yëpp emploi waxtu ma la ak suñu pays en développement. sauf que fii mais ma tax sauf que fii nii indi benn majorité bi. xaaral ma xaaral ma wax ñoom waa Pastef ñun ñëpp xam nañ ne. mais dama lay wax nga continuer. sauf que sauf que fii nii majorité jeunes jeunes yi fii amuñu liggéey. majorité jeunes yi fii 24 taux euh, de chômage bi. dëkk boo dem 24 pour cent non je sais mais fii nii mais fii nii am na benn programme mais am na benn mais am na benn programme. il faut que ñu xam ne parce que loolu Matar ma après nga continuer euh, après nga continuer. il faut qu'on s'écoute ndegam suñu borom borom moo jox ñi xañ ñi. rawatina Macky Sall mi nga xam ne président de la république kase la. am na benn li am solo mooy am na ay mécanismes de création d' emploi yi ñu teg ak de financement à travers. donc je pense que am na ay gens qui bénéficient et c'est ce qui est important. maintenant ce que j'ai à dire. Matar Matar il faut qu'on aussi hein. d' accord d' accord madame mais il faudra le maximum de temps que vous avez aussi conféré à mon. co mais on a on a des questions pour dafa jël plateau bi comme tribune quoi je le dis et je le répète. Seigneur. je le dis et je le répète. vous me parlez du projet de Sonko. Hmm. Sonko n'a pas de projet. mais yow yaa si wax léegi de tenir un discours de va wax léegi ne. ñu intéressé wuñ wuy leen ma wuy leen ma moom. contradiction ñaata. contradiction mus ngeen taxaw Ousmane Sonko ne leen man su ma jëlee réew mi éducation bi fii laa ko fekk fii laa ko yóbbu. dinaa la ci tontu dégg ñu ne Ousmane Sonko euh, santé bu ma ñëwee fii laa ko fekk fii laa ko yóbbu. développement infrastructure lan la ci Ousmane Sonko wax. son discours tout simplement c'est que. ñii ay sàcc lañ. vous me parlez de li li waa APR wax. li muy gën di wax li muy gën di wax bis bu toogee xaalis réew mi kenn dootu ko sàcc te nit ñi xam nga ni que fii. dégg nañ fi xaalis moo ñu moo moo. ma ne dégg nañ fi vous me parlez vous me parlez d'un euh, des discours yu déplacé yu yu yu yu jeune APR yi wax. waaw Ousmane Sonko ko njëkkee moom mu ne il faut ma su ma président li li may njëkk a def mooy figer les dinosaures politiques dégg ngeen ko mu inciter la jeunesse ne dem leen ci kër politiciens yi boo leen fa demee boo leen dajee di fekk ay milliards loolu mooy def loolu mooy jeunes yi sàcc leen vous me ah, parlez de l'argent vous me parlez de l'argent da ne Ousmane Sonko nu wax bu ñëwee day xeex corruption day xoo mais Ousmane Sonko c'est c'est la personne la plus corrompu dans ce dans ce Sénégal là bu leen fàtte ne <laughs> Ousmane Sonko bu leen ne Ousmane Sonko il faut ngeen ko fan la jëlee aussi oto yi muy dawal c' est des c' est des véhicules de de de kii. mais mais léegi Aïcha man damaa bëggoon laaj un fonctionnaire un fonctionnaire un simple fonctionnaire mënu ko tabax Ousmane Sonko c' est un inspecteur des impôts et des domaines. laaj leen ko ndax mus na jël fonds commun laaj leen ko ndax mus na jël euh, prime. bu paree laaj leen ko ndax mus na may avantage laaj leen ko ndax mus na xam nga yéen question yi ngeen war a wax waxoo leen ko. laaj leen ko ndax ba muy nekk impôt et domaine mus na jël prime mus na jël fonds commun laaj leen ko ndax mus na terrain yi ñu dagg ndax mus na cee am. il faut ngeen xam loolu non non non Matar laa bëggoon interpeller sànq wax wax na fi euh, ay jeunes euh, surtout si wàllu liggéey euh, programme bu xëyu ndaw yi dama laa bëgg laaj su fekkee xam nga programme bi. fan la fan la toll programme xëy ndaw yi comme que. man li ma mën a am mooy li ma wax li ma xam ba xam ko mooy il y a des mécanismes yu président Macky Sall teg. non programme xëy ndaw ñi laa wax. waxuma ay mécanisme non man je veux pas un langage politicien quoi. mais mais loolu yi la bokk. waaw allez que bala ngaa nga programme xëy ndaw yi mais xam nga programme xëy ndaw yi teg na ay mécanisme de formation. yu mel ni xam nga programme xëy ndaw yi. lu ci lire le projet bi ak ba xam ko. parce que xam nga xaaral ma explique la. mais dégg nga moom après après nga di wax xam nga lan mooy difficulté bi fii Euh, sur jeunes yu bëre wala ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu politique ñoom dañuy ñëw si plateau télé ku soit am nañ ñu dem à la rajo di tenir benn discours boo xam ne ñoom xamuñu sax seen politique gu parti nu mu demee. man nag loolu moo tax ma lay laaj ndax programme xëy xëy ndaw yi. man nag li may wax dama ko waxantu allez-y parce que damay suivre le président Macky Sall. ñaata dem dama koy topp ci bi de tournée école. ponk la. dama lay wax benn affaire. <laughs> mais programme ponk laa ñëw mon cher. fa laa ñëw. dama ne la bala ngaa et puis li gën li président Macky pour wax leen ne le président Macky Sall est un visionnaire ba mu ñëwee au lieu muy wax xëyu ndaw yi dafa wax formation teg ay mécanismes yu ci mel ni 3FPT euh, ONFP pour former jeunes yi d' abord ñuy wax mu teg des mécanismes de création d' emploi ANPEJ euh, des mécanismes de financement DER et cetera et cetera. waaw même ma expliqué la waaw même même ma expliqué la même ma expliqué la te il faut ñu xam ne il faut que ñu nangu ko bu du ko nanguwul rek dinañ def. dinañ juum il faut que ñu xam ne il faut ñu nangu ne ci mécanisme de création d'emploi ak mécanisme pour l'employabilité de la jeunesse am na jeunes yu baree baree baree baree bari yu ci jug dem ci ñu ngi ciy bénéficier wu te bokk ci bañ parti madame Camara ma ñëw madame Camara ma ñëw il faut ñu nangu il que nga jeexal aussi d'accord dinaa ah. jeexal dinaa il faut que ñu nangu aussi ne dafa am jeunes yu bari dañoo réticent par rapport ak mécanisme yooyu parce que opposition bi ñu gis ci télé bi muy wax pouvoir amul temps wax day liggéey mais opposition ku ci mel ni Ousmane Sonko yàq xelu nit ñi création d' emploi yi leen président Macky di wax du réalité ay caaxaan la moo tax jeunes ñu bari réticent moo tax ñun ñu créer ce qu'on appelle le mouvement jeunesse pour Macky horizon deux mille vingt neuf xam nga lu ko tax a jóg xam nga lu ko tax a jóg pour ndaw yooyu nga xam ne dañoo réticent non dinañ ñëw foofu on va terminer avec ça rapidement rapidement Ousmane xoolal xoolal ngir yàlla tamit ah faut à chaque fois aussi nga bëgg di tontu mot à mot ci li muy wax aussi loolu daf ñuy delloo ginnaaw quoi ñu avancer un peu sur le débat bi balaa moo gën a neex c'est-à-dire bu ñu jëlee benn point euh, ñu ñu àddu ci ñu épuiser ko ba mu jeex parce que moo tax du ma nekk ci logique bu tontante non man damaa damaa tontu damay laagaw nag yow de euh, man a chauffeur maa la ëpp expérience ci politique ak a tontu ndaw ngeen ñu topp Ousmane Sonko. le débat c' est yi la waxal. donc damay leeral rek damay leeral rek parce que. c' est à dire il faut que ñu leeral carte yi. parce que mhm. débat bi bu ñu ko sorxoo sorxoo rek. allez-y Sénégalais mën nañu bañ a dafa laaj lan mooy idéologie politique déjà police cité moom mooy l'art de gérer les affaires de la cité boo gëstoo ci livre bu ñuy wax le savant et le politique bu Max Weber dafa am lu muy leeral tuuti ceux qui vivent par la politique et ceux qui vivent pour la politique ñiy dund par la politique mën nañ leen a tuddee de façon péjorative ay politiciens. mais doo tontu Aïcha li nga damay ñëw damay ñëw fil argumentaire la bàyyi rek ma ko ne ñi nga xamante ne nag ñoom yaakaaruñ ci politique. ñooñu dañuy ñëw politique pour suqali seen réew wala seen gox am na ci loo xamante ne duñ ci dugg li ma bëgg a wax foofu moom mooy ne il nous parlait d'idéologie ma bëgg a wax ne ko idéologie ensemble de vue sociale politique économique boo xamante ne benn kuréel. da koy teg jàpp ni lii bu ci askanam tegoo mën na jëm ca kanam. ay définition parce que non non parce que foog mu leer parce que parce que non non même rek même rek même rek même damay leeral ko parce que bu ñu waxee le projet Pastef président ko bi mu bindee programme bi ñu bindee programme jot na bu 2019 dañu consulter cadre yi nekk ci monkab yëpp ci commission yëpp mooy mouvement des cadres patriotiques du Sénégal bu ñu ñëwee ñu gis ne ci wàllu agriculture six zones yi nga xamante ne dañ ko teg nga dem ba Casamance nga toog fa au mois d'août wala mois de juillet xetu màngo bu yàqu moo lay xeeñ yaakaar naa ne kuy wax projet kuy wax vision ci Macky Sall yaakaar naa ne loolu war na montrer lii ay carence la par rapport rek politique yi nga xamante ne teg na ko mu nërmeel Sénégal da ngay ñëw ci wàllu emploi des jeunes mais ñun fi ñu jógee muy région de Thiès particulièrement département de Tivaouane ñaata industrie extractive ñoo fa nekk dañuy kàjji seen tànk li ñu woowee les politiques ou la politique RSE responsabilité sociétale des entreprises lan la ñu boo demee fu mel ni Diogo zircon la ñuy exploité est-ce que population yooyu gis nañ ci seen bopp population yooyu ñooy daw. di ci li ñuy woowee. mais am na ñu bëri ñu bëri ñu fay même loolu ba mu ñëwee Tiwaawoon chaise yi dañoo vidéo vidéo yaa ngi ci net bi Tiwaawoon dafa ñëw. non je me dis en matière d'investissement. ma ñëw ay ay promesse wax Macky bu ci dóor sa doom. maa la ko wax promesse Macky bu ci dóor sa doom léegi ma ñëw même tuuti ma ñëw même tuuti ma ñëw. non par courtoisie bi ngay wax dama la dégg. non bi ngay wax dama la dégg. même wax non débat bi je vous en prie. non non non non non non certainement a souffert en silence. yow tamit essaie de faire pareil. parce rek yow boo jëlee boo jëlee boo jëlee. nga ne boo jëlee nga ne da ngay joxe vingt cinq mille non dañuy wax rek borom xel yi la ñuy waxal boo jëlee nga ne da ngay jox vingt cinq mille parce que waaw voilà. boo jëlee nga ne vingt cinq mille francs da nga koy jox ay ménage da nga koy jox ay ménage en tant que président bu ñu jox ñaari mandat en tant que président bu ñu jox ñaari mandat cela veut dire que tu euh, acceptes avec consternation. léegi ton échec cuisant foofu noonu. loolu loolu li muy firndeel s'il vous plaît parce que on a loolu li muy firndeel loolu li muy firndeel. loolu loolu li ñu vous plaît. non cest dire xam nga ñun wax pour les Sénégalais. non defal naa ko. tuun tuun s'il vous plaît quand bi ngay wax aussi dañ la déglu bàyyi la nga jël sa temps bàyyi ko mu wax. cest dafa am loo xamante ne boo ko bëgg a changer sànq dafa dégluwul. dama ne ko lan mooy finalité idéologie classique parce que moom loolu la xam ñun ñu def science politique. c'est que da ngay arrêté di di non non on vous demande. non l'idéologie du Pastef ñëwal ci ah, loolu parce que Satan mu ngi daw on n'arrive toujours pas à de vous couper alors que. non non non xam nga xam nga ma indi lool xam nga tax ma indi lool xam non rek il may may xam nga tax may leeral lool xam nga tax may leeral lool ñun dañoo seetlu ne ñun Pastef li ñu jéggaani progressisme wax naa ko fi sànq socialisme wax naa ko fi sànq capitalisme wax naa ko fi sànq yooyu yëpp ay xeeti idéologie la mais fan lañ ko jëlee baatu idéologie boobu laay ba ñu tudd ko xam nga lu tax parce que ñu ko jël buñ ko jéggaanee fële indi ko dama ne woon lan mooy finalité bi. mooy lan mooy idéologie non non c'est tout léegi da ngay def nag. ce qu'on va faire. na xam na euh, dafay bàyyi dafay bàyyi ma daaneel. parce que bu fekkee ne yow. da nga jël ay tour da nga jël ay tour nga ne man droit gauchiste la nga ne man progressiste la dama koy indi indi ko Sénégal mais da ngay daanu parce que réalité politique socioculturelle religieuse adapté wul ak capitalisme wala adapté wul ak progressisme moo tax idéologie foofu idéologie foofu moom fu koy euh, déggee mooy le sens classique. ñun parce que non ñun mën nañu jàngal ko lay jàngal ñun mën nañu jàngal ko lay jàngal non c'est péjoratif xam nga tax idéologie nekk terme boo xamante ne dañ koy galvaudé xam nga tax ñu koy galvaudé parce que dañuy dañu jël. on termine rapidement. non na ma may tuuti une minute ñu tëj foofu noonu. benn question. boo nee ma lan mooy projet Pastef mën naa la ci tontu. mais boo nee lan mooy idéologie bëgg ma calquer ci modèle européen wala occidental. non on a fait parce que yow. non da ngay may ni. non non non non non non non non non non non non non non non non parce que buñ ko toppee. mais on a compris tamit lu nga bëgg a wax on a compris que ah, waaw si si que que idéologie c'est péjoratif et tout. on a compris même lu ma la bëgg a laaj comme que Tivaouane nga jugee. Mm-hmm. bon peut-être moom mooy comme que. voilà euh, euh, comme que Tivaouane nga jugee euh, gis nañ ni bon am na ay députés yu quelques députés yu nga xamante ne ñoo dem si quatorzième législature bi à l'Assemblée. Mm-hmm. bon amoon na Massata at at Mamadou Niang yi nga xamante ni Tivaouane lañ jugee et tout. Mm-hmm. yow nan nga gisee taxawaayu député yi nga xamante ni Tivaouane lañ jugee si Assemblée nationale. waaw euh, di rafetlu bu baax euh, taxawaay bi ñu fa am muy coordonnateur Assane Diop bu Pastef ak député Massata Samb ak ñeneen ñëpp di wax ne euh, pour répondre à cette question problème bi ma soulevé fii yëpp ci département Tivaouane hmm. le Massata bi nga xamante ne jàpp nañ ko tëj en bafouant ses droits moom doon ko def Massata Samb particulièrement moom moo nekk Tivaouane Euh, di wax ne doon na évoquer le problème du chômage Darou Khoudoss Tivaouane Chérif Lo Ngaye Taïba Ndiaye Ñaaxeen euh, dañoo toog ci or dañoo toog ci koom-koom bu ma nee or mooy maanaam ci koom-koom ci richesse mais richesse boobu amul kenn ku fa dëkk ku ci gis sa bopp ay indien ñoo fay ñëw ay indonésien suivant les régimes ay australien ñoo fay ñëw ay français ñoo fay ñëw ak yeneen xeetu réew mais sànq bu may bu may laal foofu tuuti di cof ci lan mooy projet Pastef mais renégociation des contrat daf ci bokk. ok mais li ñu sénégalais yi moom. ñu gis ci seen bopp ñu xam ne ñu xam ne ñoom lii. ci seen suuf lay meññee tubaab warul ñëw indi leen foofu député yi jugee Tivaouane wax ñëw assemblée nationale. donc député yi jugee Tivaouane foofu. est-ce que ñu ngi waxal au nom. mais question yi may abordé moom laa lay wax ne la honorable député Assane Diop évoqué na ci. Massata Samb évoqué na ko par rapport ak éducation. problème la la la sa gis-gis ci par rapport ak problème mu Massata bi ak Mamadou. mais problème mu Massata bi ah, ah, ak Amy Ndiaye Gniby ak euh, cest à gis nga la croyance dafa nekk lu sacré ci nit. nit am na droit nekk kilifa diine politique parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne si la politique est faite comme e se doit mooy métier bi gën a noble ci àdduna sëñ Babacar si teg ci ne. ab yat la bu ñu teg ci penc mi ñi seen loxo set bu ñu ko fa bàyyee seexlu ko ñi seen loxo te ñoo koy jël ci dóore donc oh, donc kilifa diine bu mënti nekk ci Sénégal am na droit ne man dama bëgg a samp parti te yaakaar naa ne pur di ko nuyu de passage mu seen guide religieux sëñ Moustapha Sy yàlla na ko yàlla yàggal te wéral ko am na droit nekk président parti mais loolu du raison du motif valable ba benn nit du ma ko tuuteel parce que dañu nekk ci weewu jigéen weeru jigéen mm-hmm. du benn nit moo am sañ-sañ daal di offenser le guide spirituel d'une communauté loolu d' abord dañ koy ñaawlu di ko condamner avec la dernière énergie. réaction bi ci tukkee nag député réaction député. réaction bi ci tukkee réaction bi ci tukkee nag réaction bi ci tukkee nag. waroon nañoo def de vérité ñun ne kenn mënu ko défendre. te d' accord aussi loolu. bàyyi na solo ñun du ñu défendre loo xamante ne c' est jigéen ñun jàpp nañ ne kenn du ko dóor jigéen jàpp nañ ne dañ ko war a warmal mais dañu ne nit nit la am na loo xamante ne mu ngi nelaw ku nekk ci ñun ku ci nekk ci ñun am nga ay faiblesse parce que kenn matul mais li ma bëgg a xamal foofu mooy lan moo sooke loolu parce que sénégalais xamul ku tooñ ku fayu la xam parce que nit ki nga xamante ne xamoo gëm-gëmam fan la toll ci moom boo jógee nga insulté en quelque sorte ki nga xamante ne mooy guide spirituel comme ils ont raison de ñu ñu ils ont raison de de la frapper loolu nga bëgg a wax. non waxuma la ils ont raison de la frapper. li ma leeral li ma leeral leeral naa ko li naa ko en tant que gentleman am na loo xamante ne duñ ko cautionner. en aucun cas duñ ko cautionner. mais nag li ñu dul cautionner aussi fa problème bi sookee diine jàmbur gëm-gëmu jàmbur kenn amul droit tudd ko c'est sacré. ok parce que dafay nekk loo xamante ne mooy li nga xamante ne moom moo lay lié ak sa borom. merci eh, beaucoup bon bu fekkee parce que parce que boobu. mu bàyyi Thioune mu mu euh, mu sànni ci ay kàddu ñu tëj ah. donc merci beaucoup euh, xam nga aussi bu fekkee ni damay woon ndaw ñi à travers moom. Euh, ñu bañ di dem aveuglément. ci ay nit leen dugal ci yenn yi. parce que bala ngaa dugg ci parti politique da ngay xam d' abord. c'est que il faut avoir un peu de respect aussi pour ces jeunes là. lan mooy euh, on se dise la vérité c'est quand même des ah millions de gens. qui sont autour de lui si parce que en disant que dañ leen ni topp parce que yaa ngi koy répété moi j'ai voulu laisser passer. mais yow xanaa kon yow jeune nga bokk. lu la neex wax mais mais man dama bëgg kuy kuy wormaal nit xam nga li ma la mais yow non non c'est-à-dire que yow dinañ la ko jox mais dañ lay relancer yow mi ànd ak Macky Sall waxuñu la ne da ànd ak moom par euh, par comme mouton en fait donc yow aussi maya amal respect pour ñeneen allez-y mais mais juste que nga am respect respect. waaw pour ñeneen ñi. d'accord alors alors ah, on termine Matar manqué de respect benn jeunesse. mais est-ce que jeune est-ce que jeune nga sax yow Matar. dama bëgg dama bëgg mais Matar yow est-ce que jeune nga laa wax. dama bëgg yow au nom des jeunes. jeunes yi nga xam ne dañu ànd ak Pastef ànd ak Ousmane Sonko mu leen di euh, yóbbu fu nekk nañu xoolaat seen bopp parti bala nga cee bokk da ngay xam lan mooy idéologie bi ñun suñu parti bokk. comme moom xamul idéologie ma xam ko ma wax ko ñun waa APR. <laughs> mais ñun suñu idéologie mooy libéralisme idéologie li libéralisme. xam nga libéralisme dañ ko jéggaane indi ko. dañ ko jéggaane importé inadapté à nos réalités sociales euh, et culturelles. inadapté s'il vous plaît on n'est pas là quand même pour un cours magistral quand même vraiment tamit ah ñu bàyyi la nga terminer. Matar. waaw xam nga parti politique boo koy samp. dafa am ci ay base yoo koy sampe man de samp naa sama parti politique bi bu ma ñëwee lii de laa lii laay doxale lii laa bëgg a def lii ak lii ak lii ak lii ñoom amuñu ko ñun waa mais la fin justifie les moyens maintenant ñun suñu idéologie mooy le libéralisme c'est quoi le libéralisme courant rek la politique. fan la jógee buy défendre les droits individuels. buy défendre les droits individuels. ko parce que moom nii la doon aspect est bu défendre les droits individuels en porte-à-faux avec les arrestations ñun waa APR ak président Macky bi ñu samp partem mooy fexe ba Sénégal am émergence l'émergence du Sénégal. les tax ñu teg. moo tax ñu teg le plan Sénégal émergent je comprends l'attitude de mon ami parce que xam naa fu ma ko laal xam naa ne ci booy passé fi la bokk. mais garaaw léegi faut pas que nga wax loo xam euh, wóoru la. maintenant li am solo ba am solo mooy. nañu ñëwaat ci li nga xam ne moom la président Macky Sall di def ci dëkk bi. ci wàllu emploi des wax loo xam wóor la yaa ngi naan ci wàllu yoo xam la première fois nga gis ko ba pare ne emploi des jeunes mooy emploi des jeunes mooy tey yaa ngi wax affaire emploi des jeunes mais tey sax bay wax emploi des jeunes mais doo jeune ma tax doo jeune mooy ñaaraan nga am l'autre aspect mooy doo tontu parce que nekkoo jeune. ñu fi indi li ñu fi indi mooy président Macky li mu def ngir sénégalais yi. non wax yow sànq ba yaa ngi waxat au nom des jeunes te nekkoo jeune. ma loolu moo a jaaxal ñaar at nga am. madame Camara. Euh, on n'est jeune ba pare di o au nom des jeunes. ngeen xool seen chroniqueur yi ngeen fi indi nag. <laughs> parce que ñii vraiment mooy loolu quoi. léegi euh, je disais que président Macky Sall jeunes yu bari dañu réticent ci mécanisme euh, de création d'emploi ak financement yi mu teg parce que opposition bi dañu yàq seen Macky Sall li muy def baaxul création d'emploi boo bokkul APR wala nga bokk Benno Bokk Yaakaar doo ko am alors que tel n'est pas le cas il y a pas mal de jeunes au Sénégal yu ciy bénéficier wu. ñu teg un mouvement tuddee ko jeunesse pour Macky horizon mouvement boobu li mu lan mooy ambition am dem jëli ay jeunes yoo xam ne mosuñoo politique. ñu fexe gindi leen ñi nga xam ne dañu réticent woon ci lool ñu fexe indi leen ci lool ne leen président teg na fi ay mécanismes dem leen ngeen jëli. liggéey yooyu parce que liggéey yooyu président Macky Sall def. merci beaucoup teg pour yéen la. merci beaucoup donc jeunesse boobu aussi. jërëjëf jeunesse boobu Macky non non non Taalu jeex na yow lañu jàppale président Macky Sall aussi ngir mu am deuxième euh, deuxième quinquennat incha allah. jërëjëf merci madame maa la koy ñaan. non Taalu jeex na man fi ma la bëgg a interpeller. fi ma la bëgg a interpeller fi ma la bëgg a interpeller nga terminer ak loolu. Euh, c'est-à-dire man sama bopp bi sax mu ngi metti quoi fi ma bëgg la fi ma la bëgg a interpeller hmm. pour nga terminer ak loolu. Mhm. le 14 15 16. d'une part nit ñi dañuy wax ne que yéen bëggoo leen dem procès. Euh, vous vous sentez vraiment menacé. Mm-hmm. Ah, xamatoo leen foo leen jëm. Mm-hmm. amatoo leen benn issue maintenant vous tentez de déplacer le combat dans la rue. Mm-hmm. est-ce que exactement c'est ça parce que bu ñu gisee aussi ngeen def 14 15 16 Ousmane Sonko xale yi nañ ñëw. nañ ñëw ba ci biir c'est vrai ku mu neex dem tribunal. mais est-ce que c'est pas une manière de déplacer un peu le combat dans la rue parce que démb euh, marche bi autorisé nañ ko mais finalement dafa jeexee ak ay tirs de lacrymogène. lu mënoon ñàkk justement. Euh, donc di di waxaat rek benn mbir ne. deux minutes ah, amul théorie nag amul amul cours magistral. waaw da ngeen may bàyyi rek moo parce que man j'aurais bien aimé avoir le temps de vous la question sur votre mauvaise communication au sein du Pastef. mais malheureusement je ko ci ñaari minutes ñu tëj ah. non dire euh, sànq dafa am loo xamante ne peut-être ci samay propos dañ ko comprendre balaa may laal foofu moom mooy ne. dama laaj. idéologie. non moom pare nga jeex mu euh, wax ay affaire de droit ci yow laa jógee ñëw ci moom dañuy tëj. par rapport bi mu ko tuddee bi mu ko tuddee daf ci wax ay droits et libertés individuelles. mais force est de reconnaître aujourd'hui que àq ak yelleefu doomu aadama yi Sénégal Human Rights Watch. États-Unis Congrès américain yëpp ñëpp ils condamnent les exactions commises par le régime dictatorial du président Sall. léegi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne combat bi ngeen bëgg a déplacer dans la rue. 14 15 16. gis nga réew. bu fekkee ne justice bi dafa nërmeelu. Hmm. wala dafa sëngeel dañuy delluwaat ci principe de base parce que état de droit. Hmm. état positif. dafay am soubassement lu ñu woowee légitimité. loi boo gis cëslaay li moom moo nekk ne volonté populaire moo koy accompagner. Parce que loi ne peut pas naviguer à contre-courant. Une justice ne peut pas être portée à l'endroit du ou à l'encontre du peuple. Merci. tey jii nii il faut que sénégal yi génn. les jeunes yi ñu génn. bu ñu génnee bu ñu génnee parce que mënoo nekk sàcc international. ba pare ñu naan la noo jàppoo ma gendarmerie jàppoo ma police moo ma jàpp ndax Sénégal yëpp xam nañ ne Sénégal xam nañ ne loolu ay naxee mbaay la ay caaxaan la moo tax le 14 tontu ma sa question question présentatrice bi laay le 14 le 14 le 15 président Sonko mm-hmm. président Sonko tànkam suñu tànk te dañuy génn ci département yëpp wan communauté national ak internationale ne leen ne lii mooy Sénégal. Fatick moom préfet bi nee na. Fatick ma ne ñu woon communauté internationale ak nationale ne leen Sénégal vingt et unième siècle Sénégal vingt et unième siècle fii la toll tey boo waxee ne fii laa far boo ne Pastef laa bokk sympathisant Ousmane Sonko la tu es traqué tu es traqué mais Matar tamit ñun dégluwuñ la moom la déglu doo ko bàyyi parce que parce que loolu la Sénégal toll. merci beaucoup mais nag li tax ñuy woote mobilisation yi ak rassemblement yi dañoo xam ne mbooloo mooy doole. te Macky Sall leen rek la ragal. mais est jar na ko rapport de force. comme am force bi nga xamante ne c'est la voix du peuple. force boobu amul justice bu ko mën a. ébranler merci amul régime dictatorial boo xamante ne mën nga ébranler. jërëjëf merci beaucoup moo tuumal Mame Mbaye Niang euh, loolu koy génn xeex moom euh, bu amee ay preuve na ko teg ci bëgg wax ci procès li ma bëgg a wax mooy Ousmane Sonko. ah boo ma joxee Mame damay tàggu nee na am na ay preuve moo taxaw ne moom ci internet bi la ko gisee waaw mais du jël preuve yooyu ci internet bi ñëw teg ko moo gën muy woote ay renvoi ak di o oh, xale yi naan leen kaa leen xeex te moom bu fekkoon sax ba muy dem Euh, euh, Sweet Beauté daa ànd ak xale yi ñu mën a wax moom bi muy dem Sweet Beauté ànd la xale yi bëgg a génn xale yi ci terrain bi na leen kaa leen xeex. on parle pas de Sweet Beauté c'est pas c'est pas la question. dégg nga ko muy wax ay wax digression day génn rek. dégg nga ko aussi muy wax di tëral un discours naan ay entre xawma les les deux jambes ñun comprendre nañ ko parce que moom il a un problème de xam nga mooy loolu quoi. war ma ngeen baal baax quoi war ma c'est-à-dire non non lii lii mooy formation. vraiment lii mooy formation c'est-à-dire excellence. merci beaucoup ah alors Alassane Alassane ay ta complicité ay ta complicité dañuy ñëwaat léegi léegi benn point bu ndaw rek dama dama remarqué non yéen moom pare ngeen dama remarqué mm-hmm. euh, à chaque fois bu journaliste waxee ah,

ngeen jox opposant bi da ko jox aussi ki nekk suñu fi toogee tey suñu fi toogee tey vous avez bien dit que xamuloo ma xamuloo ma on se connaît pas donc Euh, on se doit. c'est-à-dire ñoom li lañ leen jàng li mooy seen idéologie quoi li mooy seen formation bu ñu bu ñu génnoon ci. ci ci ci cadre ci plateau bi nii.